appartient au députés su doon booloon nañu nekk benn nu ñu bloqué woon assemblée national si mbirum post suñu amee tax suñu amoon taxawaay boobu noonu si mbirum proposition de loi teg ko nekk ensemble kon tey affaire bi réglé wu na te bu ñu fàtte affaire bi depuis yàgg na ça fait deux ans deux ans nag soo ko defee mu doon deux ans yoo xamante ne nangu nga. règlement intérieur bu ñu falsifié même su de yaa ngi koy wax mais yaa ngi siy jëf premier ministre ñëw fa muy premier ministre Amadou Ba mu doonoon une occasion pour relever loolu defoo ko nga sukkandiku encore si règlement intérieur boobu pour defal ko motion de censure ne daal di daal di daal di participer si déclaration de politique général waa su beneen premier ministre ñëwee lan moo fi changé premier ministre yi premier ministre la premier ministre mooy ku président de la république nommé constitution ne ko demal defi sa déclaration de politique générale la moo changé ci diggante bi dara changé wu donc cette affaire la député yi ñoo ko war a régle keneen waru ko régler wala ñu wax député assemblée nationale yi dem leen ngeen régler problème boobu soo leen ko réglewul sénégalais yi. su ñu defaatee assemblée nationale bu bees dinañ am vigilance ba lu mel ni dootul amati mais bu ñu orienté responsabilité si ne képp kuy député am nga si responsabilité parce que député yi ñoo am l'initiative de la loi loolu dama bëgg ñu leeral ko bu ko kenn buux kenn soit dañoo yokk dara si con si règlement intérieur bi yokk boobu wala dañ fee wàññi dara waa defal parce que dama leen di wax benn affaire loi soo ko voté député ba dafay yor këyitam projet lay de loi doon wala proposition de loi mu yor ko nga dem plénière nga dem commission ñu def ay amendement nga dem plénière ñu def ay amendement yow sa bopp loi bu ñuy voté danga koy téye xam nga ko suñ ko publier promulguer ko publier ko xam nga ndax méngoo na ak li nga voté woon su dee méngoowu ko jëlaatal loolu nga dugalaat ko def sa proposition de loi ne leen delloo leen lu ñu vote woon c'est aussi simple que ça mais ça n'a pas été loolu mooy dëkk te ñu ñu waxoon nañu ñoom la ñuy yëkkateendoo dóorandoo xaajaloo nañu kii jaar nii kii jaar na moo tax jour ba may toog fii devant vous di leen wax waxu yeewi askan bi ak duppari bu am si biir résultat bi mu ngi noonu lii dara bettuñu si dem ba falu rek beddi ñeneen ñi la preuve gouvernement am na anawaay yeewi naxante rek ñu nag naxante yooyu nekkuñu si donc loolu dama bëgg ñu leeral ko maintenant nag suñu ñëwee ci acte bu président premier ministre def wax naa leen ko léegi premier ministre article 55 moo ko tënk su règlement intérieur bi délai bi tëbee il n'est plus lié par les délais mais yaa am na délai yoo xam ne quand même moom war na mën a yàkkam ci sax wane ne leen fii laa bëgg a yóbbu réew mi au moins donc warul élastique mais il n'est pas tenu par les délais donc su ko neexee mu def ko ci trois mois yi su ko neexul mu bañ ko def ci trois mois yi waaye taxaw ne da ngay joxe ultimatum assemblée nationale defar leen seen règlement intérieur bi balaa la 15 fii ak le 15. c'est extrêmement grave constitution dafa wax tout mandat impératif et nul gis nga député même ku ko dugal ci liste bi ne ko dama bëgg nga nekk député constitution mayu ko mu koy jox orientation même électeur bu ko votel dañ ko ne votel ko pour un mandat mais moom moo lay représenté tout mandat impératif et nul c'est dans la constitution su ma juumul article yow nga nekk premier ministre un nommé di président de la république membre de l'exécutif nga am barrière séparation des pouvoirs nga ñëw fekk waa député yi ne leen fii ak le quinze bëgg naa seen règlement intérieur boobu nga xam ne sama yoon nekku si bëgg naa ngeen defar ko moo tax gis nga ultimatum bii su ko député yi nangoo mérité nañ ñun ñëpp ñu dem jëlee leen assemblée nationale parce que su boobaa xamuñu seen rôle le premier ministre n'a pas d'injonction à donner aux députés c'est un manque sérieux boo xamante ne daf ko am par rapport à nos à nos institutions daf ko dafa doon loo xamante ne jalgati la muy jalgati yoon loolu nag dafa doon loo xamante ne ne jaaduwul ci réew premier ministre amul pour joxe ultimatum damay dégg ay observateur ak ay analyste ñu ne il est dans ses mais juste que lu mu wax ne da koy def feneen et cetera moo kii waaye quand même il est dans ses droits il n'est dans aucun de ses droits aucun nekkul ci benn droit am ultimatum boobu nekkul ci benn droit am te damay wax ñooñu di ko défendre ci loolu le 5 juin dans le communiqué du conseil des ministres ba ñu ci bindee ne le premier ministre dafa toog conseil des ministres yëpp ne moom day defi déclaration de politique général au niveau de la euh, de l'Assemblée nationale ba mu defee arrêté yóbbu ko service yi secretaire généraux yi ak ak ak ak ministres yi ne leen defal leen ma ay input parce que article 55 dafa wax ma déclaration def déclaration de politique de générale devant l'Assemblée damay laaj ñooñu pourquoi woowuñu ko wala waxuñu ne non monsieur le président monsieur le premier ministre d'accorduñu parce que règlement intérieur ba dañ ko falsifié lan moo leen ko tere woon wax waxuñu ko maanaam su demoon boobu ñu ne patriote la su demul ñu ne patriote la loolu nag réew di doxe noonu réew da ngay nekk sur des principes donc loolu ce n'est pas normal rawatina nag mu ne da koy def feneen ñi nga constitution article 55 waxul rek na def déclaration de politique générale dafa wax na ko def devant l'Assemblée nationale bés bu ko defee en dehors de l'Assemblée nationale tuddee ko déclaration de politique générale ñu constater un coup d'état civil et on considérera qu'il n'est plus le premier ministre du Sénégal parce que mënoo xeex les institutions ñàkk respecter les institutions bëgg a nekk à la tête d'une mënul nekk moo tax loolu ñu wax ko mu leer nekkul si yoon du rôlam waru ko def te ñàkk respecter institutions yi mooy ñàkk respecte sa bopp parce que nekk premier ministre nag tax nañu jox la cër si lu bëri te loolu institution yi yi nga war a respecté wala ñun yu ñuy respecté moo tax donc jàpp leen boobu respecté wul institution à travers son comportement respecté wul les sénégalais ñi tax respecté wul les am na xeex yu bëri yi ñu koy xaar. xam ngeen ne chômage bi tal tar na de te waxoon na projet bi dina ko régler xam ngeen ne problème souveraineté alimentaire c'est un problème xam ngeen ne problème mu santé bi c'est un problème problème éducation bi problème la Sénégal màgget la fépp ay metti ñépp di ko xaar ci loolu moom mu bàyyi loolu dafa mel ni rek koo xam ne da war a dem guerre bu mag a mag a mag ñépp toog même ñoo xam ne sax d'accorduñ ak yow taxaw nañu pour jàppale la si nga dugg si biir kër yi di xëpp nit ñi ay suuf ak ay ndox xëpp presse bi suuf xëpp ndox justice xëpp opposant yi nga xamante ne ñoom dañ ne dañ la may temps d'observation nga nga cokkaas leen ne leen wax leen parce que soo leen waxee gars yi wax si man xëpp ñëpp suuf loolu mooy ma ñàkk respecté population yi ñàkk respecté sénégalais yi ñàkk respecté sénégalais yi nag ak ñàkk respecté seen intelligence nag rombul ngay wax waxu domaine public maritime te waxoo aali kalaj bi dem na ans benn naa ne dañoo joxe 1000 mètres carrés 2000 mètres wax na fa ba 5000 mètres carrés ay nit jaaduwul wax na dëgg domaine maritime comme nu mu ko waxee bul laal la tudd et il raison waaye dañ koy laaj moom nan lay gérer hôtel Azalaï hôtel azalay du 2000 mètres carrés du 1000 mètres carrés du 3000 mètres carrés 7000 mètres carrés la ci littoral bi 7000 mètres carrés. te ba ñu génnee ñoom kaso foofu lañu dem fanaan foofu lañu def seen quartier général ba ñu gañee foofu la président jógee dem defi prestation de serment dañ koy laaj nan lay def ak hôtel boobu ñu xam dakaar man kamoon taawun la dama ñëw jàngi si Dakar waaye ren laa fi def 28 ans xam nañ ne foofu après teeru bi dañ fa doon sangu population yi foofu lañu amoon accès di fa sangu di am vue vue mer bi di féexal seen xol kenn privati privatisé wu ko woon ñu jël 7000 mètres carrés jox ko kenn ñoom ñu avalisé loolu président fa la jógee dem prestation de serment Ali Kalaj gi si mbirum loolu mooy na régler loolu ba pare ba ñu xam nan la koy defee dama dégg keroog benn préfet su ma juumul bu mu ne ba may toj kër yi sama kër nijaay laa njëkkee kon moom dañ koy laaj mu njëkki dañ koy wax mu njëkkee si kër xaritam yooyu ba pare ba mu leer na ne tëdd na njaaxanaay mu soog wax leneen nee na justice justice moom lu mu si wax si scandale yow tu premier ministre tu n'es même pas président de la république dans un régime de séparation des pouvoirs ngay accuser des juges de corrompus naan dangay ngay def toilettage maanaam ñun Sénégal ñooy d'accord yow nga ñëw xool juge bu la comme nu ngay noomee nii ne da ngay def appel à candidature nga bàyyi loolu jël say nit dugal kon noonu nga bëgg a def justice ba ma nekkee ci jafe-jafe de juge bii de woowoon na ma na ma massa na toog fii yow jóge fi kii de nu mu nu mu nekkee nii xamante naa diw na nii noonu la bëgg a lay justice c'est scandaleux moo tax man boobu ba léegi dama toog di déglu réaction yi réaction yi ndaw na de xeeb nañ lu muy act yu muy posé de xeeb nañ ko de quand tu dis des choses comme ça sur la justice di wax ku fi deful lii dinañ def lii lii ak lii di menacer nan la press waa ñoo ñu bind lool nañ ko bindaat xool waa et alors suñ ko bindaatee yow yaa war a sanctionné yow yaay justice man fii ku ma tooñ si yeen fan laa ko yóbbu si premier ministre moom mooy regle problème yi justice mooy régler problème bi mais dama koy wax bu mu wax ci justice te waxul tamit ci beneen aali kalaj aali kalaj bi mooy moom dafa am dossier ci justice le premier ministre a un dossier pendant devant la justice ndax la ministre de la justice bind na ko SMS ne ko procureur nee na ndax dama bëgg a enrôler ce dossier nan la ñuy def lan la ko tontu. ndax moom woo na ministre de la justice ne ko waxal procureur mu enrôler sama dossier dañuy wax président de la république dossier boobu ñoom nan lañ ko bëgg a gérer ndax dañ si mettre le coude jàpp ñeneen ñi wala dañ koy gérer ba pare soog a nekk jublu si ñeneen ñi question la loolu nag dama jàpp ne ne ay mbir la yoo xam ne dafay wone ne très franchement ñàkk respecté sénégalais yi feeñ na te dañ koy wax ne ko mënoo yëkkati dara te commencé woow si yow commencé woow si say ñoñ parce que on ne veut pas de la justice des vainqueurs soxlawuñu justice des vainqueurs ay ñëw toog naan créé bi pour ñun la ñee pour lee la ñii pour ñii la sénégalais la ñu wax képp koo xamante ne deful lu mu war a def nañ ko teg si yoon mais da nga commence sa bopp wala commence say ñooñ kenn du accepter la justice des vainqueurs beneen bu ma si bëgg a wax nag wax naa ko léegi mooy li ko jox àttanu ko àttanu ko dégg naa ko mu ne dafa pare pare na déclaration de politique général et cetera le 5 le 9 avril conseil des ministres président Diomaye fay dafa bind dafa wax ñu bind ko ci conseil des ministres ne maa ngi laaj wax premier ministre fii ak fin avril na ma defal plan d'action gouvernementale ñu ngi ci ban mois juillet ba fii may wax ak yow plan d'action gouvernementale amul. moo tax premier ministre mën a bind moom